na ay image yu nga xam ne day metti xol loo xam ne kat daanaka kenn du ko fàtte mukk fa nga xam ne mooy faculté de li nga xam mooy chapitre dañ ko lakk ay documents administratifs yoo xam ne dañ ko def dóoma gis na ni ci consulat yi nga xam ne nag ca France Italie ak États-Unis lépp tamit dañ ko caxat caxatee loo xam ni moomee lu askan wi la wala sax ñoo xam ne seen borom ko moom lépp dañ ko daal di yaa yàq dëkk bi ñu juppee pays de la Teranga moom ba tey daanaka sax na mu nërmeeloo jafe na ci moom mu jógaat gis nañ ne sax ñoom ñi ñu ngi ci njàqare benn semaine bi nga xam ne métti na lool ci ñetti fan yoo xam ne taroon na li nga xam ne daal benn ngàllub économie bi dafa daal di nërmeelu ñu bëree bare gis ne jeexatal gu bon la ndax gis nañ ne wàllum violence mu mel ni dugg ci dëkk ak guuta ba tax na la mu yàq daal jur rek ñu daal di samp laajte lu tax violence bu mel nii lii nag moom kenn xamu ko sunum réew wa lan mooy saafara si gis nañ ne que tontu li ci laaj yooyu nga xam mooy samp mooy daal foog ñu jéem a càmbaraat wala sax delluwaat ci taarix ndax gis ci li nga xam mooy tissu social bi loolee kenn mën su koo xotti waaye tamit foog ñu jàngat li nga xam ne mooy fee yi gën am waaye tamit fexe ba événement yi nga xam ne amoon na fi wala yoo xam ne lu bees la ñu xool kat lan moo ci euh, jàngatu ku ne kon nag fa saasa tax na daal ñu mën a xam ne kat crise li ñu duppee crise des valeurs loolee sax daf ñoo dab wala damit dañ ko ràngoo kon nag violence sociale bi nga xam ne saa su ne dafay gën di jéggi dayo ak wàllum banditisme nga xam ne kat dafa gumba tax lu ak lépp loo xam xeeti bon la loolee dafa mel ni daf kon ñu yaakaar ne kat wàllum gouvernance li nga xam mooy mooy melu askan wi loolee tax tax na kat ñu yaakaar ne li xam mooy wàllum yoon tamit war nañ cee mën a fexe doon ci benn kon société bu Sénégal naam nekk na société bu soxor te loolee kat du dëgg du yoon kon violence sociale dafa mel ni ay jeexital yu bon la waaye lépp tukkee ci wàllum politique ci nii mbaa ci ne mën nañ ci am jàngat waaye tamit ci Sénégal ci atum 1968 88 wala 2000 loolee sax am nañ ci ak jafe-jafe waaye tamit kenn du ko fàtte kon ñu gis daanaka ak tàkk jëppët la loo xam ne am mënjëf la daal ba lii nag moom mën koo fay loolay saafara si dëgg kon bu ñu deful nank rek loolay dana daal suñu kaw ndax ñi nga xam ñooy acteur politique acteur société civile ak ñi nga xam ne kat ñooy kilifa diine ak jàngu bi ak ay leader d'opinion ñoom ñëpp daal war nañ cee dugal seen loxo ndax gis nañ ne saafara si moom daanaka du ci kenn rek ci ñëpp daal la ci seen loxo wala dugg ndax bu ñu deful nank rek li nga xam ne daal mooy guute gii duñ ci génn